conseiller Thiès yëpp ak personnelu mairie ak collaborateur Talla Sylla yëpp di gërëm Dame Sakho di gërëm Arona ñoom ñaar fu ñu tourné ci te ku ñu am kóllëre lañu ndax ba ñu fasante Talla kóllëre buy def euh, waañu daara ba léegi ñoom fi ñu taxawoon jóguñu fa kon nag nit da ngay xam ki ngay séqal te ñii ñuy seqal gor lañu ndax fàttewuñ li ñu def fu ñu toog ñu ngi cité li ñu leen defal di nag gërëm ñëpp ñu ñëw tey ci kaamil bi di ñaan yàlla liñ fi ñaan yàlla ko yàlla nangu su ko nangoon la ko sotti ci senegal yëpp ndax lépp xaj na ci alxuraan moom lépp xaj na ci ci turu Talla Sylla ak mairie cees ak conseil yi fi nekk ak ak tout le personnel sama baat sama kàddu laay jël di leen wax jaajëf yéen ñi jàngal alxuraan yi li leen yàlla leen yàlla barkeel képp ku fi indi aajo yàlla ko yàlla faj ku fi indi soxla it yàlla ko yàlla faj ku fi indi feebar loo mun a indi rek yàlla ko yàlla teggi di gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax tey ajjuma la xat na ara dox da dëgg mm. te kàddu gi lu yàgg yàggit amul njëriñ ku ma limul na nga xam ne aaroona yóbbaale la daam saako yóbbaale na la gis naa ñëpp gis nañu ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla barkeel seen lami amiin ngi def nag ñu ngi ñaan ngeen def ñaan ñu yeewi nit ñi. Mhm. ndax tey àjjuma la aaroon wax la dëgg dafa xat. incha allah gërëm ñëpp di sant ñëpp ñaan. boo gisee teewaay bi tey xam nañ ni commerçant yi xat nañu lool amuñu jot ndax ñii ngi jëm Touba ñii ngi ci marché yi di jaay waaye dañoo xaw a tëj suñuy place tuuti pour ñëw teewe lii di alxuraan ji nga xamante ni nii ñu ngi koy wàccee ci diggu dëkk bi te mu am solo lool ci dëkk bi fi dëkk bi toll ci ñaan kon bu ngeen defee loolu ci ñaan. di ko ñaanal dëkk bi képp ku doon nekkoon ci dëkk bi tey da waroon a bàyyi la ngay def ñëw teewe lii ndax nit deful lu ko ëpp solo fi ne nii ndax ñaa alxuraan dafa doon loo xamante ni nii dëgg yàlla dara gënu koo féete kaw euh, ki ñu koy defal aussi mu doon ko ko jar euh, ki tax ñu koy def muy maire Talla Sylla ndax euh, maire Talla Sylla damay wax ni Thiès bala ñu koo xam yàlla na yeex jóge fi xam nga nit dañuy am nit ñu dal Cheikh Anta Diop ragal naa ni moo ñu dal ci Talla Sylla parce que gis nga li muy def nii dafa xaw a yéeme doomu aadama ngay bàyyi say itte yor say oto yor say 4 x di dox jëm Touba yombul de Baye Fall ñi koy def ak a jafe te tey jii bu la neexoon booy dem oto bi ngay doon kilim lay doon lu nekk nekk ci biir nga yéeg ca wàcc ko fa di dox ci àll bii ci ñax mi dëgg yi di la jam Baye Fall loolu yombul de nit ku ko man di ko def ngir jëmmi Serigne Touba bu ko Serigne Touba fayul ñoom yi fay du bari de te li muy def da koy def ngir gëm-gëm defu ko ngir ngistal defu ko ngir dara. su fekkoon ngis ta la tax mu koy def arrêté na ko bu yàgg mais depuis ñu xam Talla Sylla ba mu nekkul dara la tàmbali di dox di jëm Touba te nag Serigne Touba képp ku ko lebal dina la fay ndax Serigne Touba suñ borom rek la doon liggéeyal kon képp ku ko lebal rek dana la fay. Euh, bi ci des it ñun commerçant yi il faut que ñu am loo xamante nii danañ ko seereel mbooloo mi ci suñ diggante ak Talla la parce que ku ne xam-xam na ni commerçant doonul koo xam ni sax day politique. waaye ñun suñu jëmmi bopp képp koo xamante ni nii ànd nga ak ñun sàmm ak ñun sa kàddu di wax ak ñun muy dëgg fépp foo ñu woo danañ la wuyu lépp lu ñu man ci jàppale la aussi danañ ko def te gis nañ ni maire yi nga xam ne nekk nañ ci dëkk bi bari nañu am na yuñ yi yuñ sinante woon ak ñoom mennum taala si la mooy ki nga xam ni moo ko respecté wax nañ ko fu nekk loolu ku ne dégg na ko mm. moo ko respecté boobu ba tey di ko doxal nekk ci dëggu ci loola bañ na ko ci ba ci bërki démboo njaay bi mu ñu dalalee ñun commerçant yi fii ci wàllu foire yooyu fi amoon dégg ngeen ko am na coow li fi amoon ci tabaski gi waaye bu mu ñëwee wax dëgg yàlla dañuy moom dëkk bi li mu bëgg moom la bëgg li commerçant yi bëgg loolu lay def foire yooyu yëpp da ko annulé ba bërki démb bi ñu dajee lam ñu waxoon daf ni la ma waxoon démb moom laa waxaat tey benn foire du fi tegee tant que yéen ñi nga xam ni yéen a ko séq di jënd ak di jaay waxtaanu leen ba juboo kon loolu nag bu fekkente ni moom maire Talla Sylla la wax na ko def ko ñu gis mënuñu lu dul di ko sant ndax di ko gërëm parce que nag amuñu lu dul suñu marché yi ñun di ci jënd ak jaay mais yi nga xamante ni ñoom la ñuy jël suñuy euh, recette di leen ko jox wax dëgg yàlla bu ñu leen waxee affaire foire dañuy lànk de tëgg seeni foire taala mi jëlul recette yi moo ñuy dimbali di ñu jàppale di annuler foire yi pour bëgg ñun ñu ciy mën a am dara kon loolu bu ñu teewee fii yoon la ñu wax ko gërëm ko ci turu commerçant yëpp xamal ko ni ko wax jamu waxoon ba tey ma nga ca lañ ko waxoon it ba tey ña nga ca parce que ñun kenn du ñu jam naane lépp lu ñu defal ci lu baax it fas nañ la ko yéenee fay bërki démb maa ngi dégg seetaan ci benn tele ñu ni am na ñetti maire yu ñu sitee ni ñooy les meilleurs maire man leen da ngeen a juum maire du Sénégal bu ñu koy seet mënta romb Talla la parce que meilleur mooy lan meilleur mooy nit kuy wax dëgg koo xam ni kàddu lu mu wax def ko te ñun Talla bañ ko xamee léegi lépp lu mu wax ak ñun def na ko kon ñun bu ñuy nommé meilleur maire moom lañ koy moomee ci Sénégal ndax tëggoon nañ fi loo xamante ni nii bëggoon nañ koo jagleel trophée meilleur maire de Thiès yàlla def ñëwu ji fekk mu tukki kon ñun li ñu jàpp mooy Talla mooy meilleur maire du Sénégal parce que kaddu lay waxee te lépp lu mu la wax dina ko def ñoo ngi koy ñaanal yàlla dëgëral ko yàlla mooy fal mooy folli bu ñu sañoon yàlla falaat ko lépp loo xamante ni nii mën na ko ci cees ak mëbët na ko ci mu àggale ko ci bijaay Seydina Mohamed barke borom Touba jërëjëf. salaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi di gërëm sëriñu daara yi nga xam ne ñoo teewoon tey fii di wàcce Kaamir vraiment di ñaanal euh, monsieur le maire si Sylla ak di feddale seen couleur ak moom man maa ngi tudd Adja Fat Badiane dëkk commune Thiès Nord man tam di feddali sama kóllëre ak ñi ma àndal ci ànd ak le maire Talla Sylla ci élection locale yi nga xam ne ci la ñu jëm li nga xam ne nag moo tax ñu ñëw fi mooy màggal doxu safar bi di ci di sargal maire bu baax di ko encouragé bu baax di ko xam ne li muy def lu mu gëm la ndax su ko gëmul woon du ko def taaliba sëñ Touba dëgg la te sëñ Touba rek la gëm ñoo koy ñaanal. moo xam ne mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla def lépp lu mu yéena bay dox ci doxu safar bi yàlla na ko sëñ Touba fay ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi koy ñaanal bu baax man mii di wax ak yow taaliba Cheikh Ibrahima Fall laa taaliba Cheikh Babacar Lo laa sama maam moo a bokkoon ci soldaar yi àndoon ak Cheikh Ibrahima Fall dem jaar kon tey bisu maire bi ñu koy wàcceel kaamil ci bisu safar bi fas dama cee taxaw ànd ak une forte délégation ñu ñëw ci pour jàppale maire ci kaamil bi nga xam ni euh, sëriñu daara yi taxawal nañ tey fii di ko wax ak di feddi li seen couleur ak moom ñoo ngi nuyu maire di ko gërëm bu baax di ko sant bu baax ndax lii yëpp boo ko gisee social bu muy def encadrement bi muy def envers les femmes envers les jeunes ak ci mag ñi ci ndaw yi ci xale yi Talla Sylla xol bu rafet la am Talla Sylla nit ku social la Talla Sylla nit ku baax la Talla la nit ku bëgg askanu Cees la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko yàlla eggale ma tam ba yàlla tegaat ko ci mairie ville bi ci kàttanu yàlla ci daraja Muhammad ci barka safar bi ci barke kaamil bi nga xam ne Euh, sëriñu daara yi ñëw nañu tey jii doon ko jàng tey di ko ñaanal ak di fëdli seen couleur rek ak moom ñoo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci ngërëm li nag ñu jiital ci le directeur de cabinet Pape Latir di rafetlu liggéeyam bu baax a baax a baax di nuyu meer bu baax a baax a baax a baax ci kàttanu yàlla maa ngi nuyu ñëpp nag di gërëm ñii délégation bii nga xam ne ñoom laa àndal jóge Medina Fall gan ak soxna Awa njaay mi nga xam ne mu nga jóge jàmm gën di bàjjanu gox dégg annonce bi rek ñëw fekk si ma fii ci yëf yi xam nga bisu ñaan la Euh, kii rek ñoo ko doon organiser sëriñu daara yi mais ñii ñooy sama collaborateur direct yi nga xam ne fu ma jëm ñoom lay àndal maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci beaucoup. wax ne alquran ku ñu woo nañu ñëw jàng ko danañu ñëw jàng ko ku ñu woowul itam danañ ko jàng ndax ci jàng alquran rek la ñu ne kon bu fekkee ni woo ngeen ñu pour nañu ñëw jàng alquran damay wax ni bégte la ñuy am kontaante la ñuy am waaye xol bu sedd la ñuy am ndax ñun amuñu àdduna ak lu dul alquran fii ñu fi ñu woo nañu ñëw jàng alquran itam buñ ñu fi woowee danañu ñëw ki tax ñu woo ñu pour nañu ñëw itam jàngal ko alquran kooku buñ ñu woowee ñëw jàngal ko danañu ñëw damay wax ni mairie bii di mairie Thiès képp koy sëriñu daara ne ci réew mi buñ la fi woowee ci mairie bi na nga ñëw jàng fi alquran war ngaa ñëw jàng ci mairie bi alquran lan moo tax damay wax ni mairie bi commencé wul ci monsieur le maire Talla Sylla ndax monsieur le maire fii la ko bàyyi te am naa yaakaar itam fii la fii la fii la fekk mairie bi waaye itam dana dem bàyyi fi mairie bi waaye ñun ñii nga xamante ne ay doomi daara lañu amuñu lu dul daara ni ñu gisee sunu bopp ci kayu Talla Sylla bii damay wax ne sama baat ni poto gis gisee wuñ ko ci maire bu ne nag jaar na fi am na lu mu def waaye nag ñun monsieur le maire Talla Sylla ñun waa daara am na lu ñu defal te nit nag am naa yaakaar ni comme bu la nit defee nga wax bu la nit defalee war ngaa wax comme buñ la buñ la defee nga xul ba ñëpp dégg ngay xul waay waay waay buñ la defalee tam war nga ko wax monsieur le maire nag ak équipe bi mu àndal ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen sant di leen ñaanal yal na leen yàlla gën a dëgëral te sàmm leen yàlla guddal seeni fan damay wax ni fàtte démb yàggul fàtte xaju fi dama ni démb yàggul fàtte xaju fi mbas mi démb rek bi ni bi nu nee nañu confirmer ñëpp nañu toog ci seeni kër laaj naa leen yéen ñëpp kan ci maire yi dëkk Sénégal kan moo ci jóg ne taalibe yi toog leen li ngeen war a dundee muy seen añ ak seen reer danaa leen ko andil kan moo ko wax ci maire yi Talla Sylla moo ko wax waañu ñu daara Sénégal yaatu na ñaata département ñoo fi nekk sëñ Babacar ñeent fukk ak juróom benn ban mairie la meeram taxaw ne daara ya fa nekk yépp man maa leen di toggal di leen yóbbul kan moo ko def ku dul maire Talla Sylla la bu ko defee nag dañ ko koy gërëmee dañ ko koy sante dañ koy wan ne loolu mu def daara yëpp la ko defal kon waa daara yëpp ñu ngi koy delloo njukkal di ko sant di ko ñaanal di ko wax ni la tax ñu koy gërëm mooy daf ko def bu ko deful woon duñ ko wax duñ ko gërëm itam ci li mu def kon nag bu ñu fi dajee pour ñaanal ko ci doxam bi ñaanal itam ki nga xamante ne gannaaw yàlla moom mooy maanaam monsieur le maire ñaanal ko ci dox bii mu dox yàlla may ko mu àggal mu àgg ci jàmm na mu doon na mu doon àggee ci jàmm yàlla mayaat ko mu àgg ci jàmm la mu yéene ci màggal gi ak la mu ca bëgg yëpp moom ak ñi nga xamante ne ñoom la ko yàlla booleel yàlla defal leen ko loolu buñ ñu woowee nañu ñëw aljumaa xat na bu doon keneen moo ñu woo amaana danañu xaw a taayal danañ ko jox ngant ne ko aljumaa dafa xat mënuñoo dagg suñu yitte ñëw waaye koo xamul noo koy def nag nam la def moo tax monsieur le maire Talla Sylla nag dafa bëgg daara dafa bëgg sëriñu daara dafa bëgg ndongo daara misaal bi ma ciy jox sëñ Babacar keroog bi ñu ramassé xale yi jële leen ca daara ja yóbbu leen fii ci carrière fii ci keroog bi ñu leen bi ñu àndee oto bi bëgg a delloo xale yi kan moo dem foofu ne leen benn xale du fi jóg monsieur le maire moo fa dem jaayanteeg ñoom toog fa ne maanaam bu dee fanaan keroog foofu la yendu guddi foofu la ko fekk maanaam añul keroog bi mu yegsee li mu njëkk a def mooy wutil wutil xale yi lu ñu lekk wutal leen ay masque jox leen keroog bi ñu leen di delloo foofu la nekk ku mu jokkoowul amul te lu mu déggul li mu déggul keroog ci taxawaaye boobu luñ ko waxul amul mais daf ko assumé foofu la nekk jaayanteeg ñoom ba mu jël xale yi keroog bi muy dugg ci biis bi xale yi la njëkk a wax nañu dugg bi mu duggee ba noppi mu ne mën naa dugg pour ñu ànd delloo xale yi kon nag monsieur le maire ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam di ko wan ni nag sëriñu daara yi ay gor lañu sëriñu daara yi ay gor lañu te duñu ay dof nag duñu ay dof ay nit lañu ay boromi xam-xam lañu xam nañu fi ñuy teg seen tànk boo gisee li mu am taala si la moo am sëriñu daara yi ci Cees yëpp ñëw fii ci mairie bi jàngal ko fi alquran yéene ko ko yéene ko mairie bi moom moo ko am ku def lu kenn deful nag di nga am lu kenn amul kon nag ñu ngi koy gërëm di gërëm équipe am di gërëm képp koo xamante ne yaa ngi ci bi di ko wax ni fa mu tegoon tànkam démb ak barki démb na ko fa teg bumu mu ko teggi bu mu gëstu bu déglu nit ñi nag ko baax bëgguñu ko ko bon rek la ñu bëgg fii ci réew mi nag damay wax ni nit ñi ku yaakaar ni nit kenn moom na fi kenn yaa nax sa bopp kenn moomu fi kenn yàlla moom moom nit ñi dëgg nag alal maanaam yàllaa ko moom alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur kon nun lii nga xamante ne ñëw nañu tey def ko yéene ko monsieur le maire yéene ko maanaam képp kuy jullit yéene ko nag ki nga xamante ne gannaaw yàlla lépp tey bu ñu dee màgg bu ñuy wax màggal moom moo tax muy xaadimu rasul tey kuy wax màggal moom moo tax kon moom itam ñu sant ko gërëm ko ndax bu demul woon amaana kon liinu am duñ ko am kon bu amee lu am nañ ko gërëmee maam borom gërëmee ko tam kii fi nekk ki ko fi nekkal muy Serigne Touba muy Serigne Mountakha Mbacké keroog bi ko fi yàlla andee ak léegi am na lu mu fi fekkoon de am na ñu ko fi jiitu woon am na lu ñu defoon waaye bi mu ñëwee am na lu mu sof bari na loo xamante ne tey def na ko bi maanaam ña dem amoon nañ ko yi amoon nañu yéene ba waaye moom la yàlla may bi mu ñëwee mu àggale ko kon nag ñu sant Serigne Mountakha ñaanal ko yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla yokku wéram yàlla na ko yàlla may lépp lu mu sumb ak lépp lu mu naal yàlla may ko mu mottali ko wane ni daal ñun ñu ngi gërëm di sant gars yi ma ne bu école dee ubbi lu ne gars mairie yi danañ ko dajale jox ko école yi bu mairie dee ubbi seen fourniture lu ci gën a bari ñoom ñoo koy jox école bi ñoo leen di béyali école yi lu ne ñoom ñoo koy def waaye ñun waa daara ndax école daf ñoo ëpp dara daf ñoo ëppal dara ci réew mi dama ni école yi ndax dañoo ëppale dara ci réew mi kon nag maanaam possibilité bi daara am possibilité bi école am daara amu ko kon li ñu waroon a jàppale école daara ji moo ci gën a yey ñoom ñoo ci gën te nag li ma gën a métti sëñ Babacar daara yi dañ leen a ganaawal bu dara desul nag lu dul maanaam soxla taxaw na muy élection ñoom ñëpp ñu daw daw wuti ji daara lu ci waay am ci daara nga koy am boo paree sànni daara ca àll ba maanaam mel ni waa daara dañoo bokkul ci réew mi loolu nag damaa bëgg waa daara am nañu fulla am nañu fayda waaye nañu gën a am fulla gën a am fayda xam ne ci réew mi la ñu ànd la ñu dëkk képp ku ñu gis bu faloo nekkal fi boppam nekkal fi ay mbokkam te du faala daara bu ñëwee ci ñun nañ ko sànni ci àll ba carte carte maanaam kenn ku ne nag sa carte électeur nga yor sa carte électeur bi nga yor nag war ngaa xool koo koy jox koo ko jox nag te waroo ko koo jox bis bu fi toogee lu mu fi def na nga xam ni yow ma ko jox carte bi yéen ko bokk kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ngir yaakaar noonu la ñuy jëlee nuyu bi nuyoo bi jox ko ko ngir yaakaar kon yàlla na yàlla ak gële nuyoo bi ci barke yonent bi nuyu ñi nga xam ne ñooy waa mairie bi te ñun ñu bokk ci mairie bi ñoom ñu nekkal ñu ci benn côté bi ñun ñu nekk ci beneen côté bi kon ñi ngi leen di nuyu waaye ñu jël nuyoo bi jaarale ko ci sunu baay Sankhare monsieur le nuyu ko ziar ko ci ay atam waaye ci taxawaayam waaye nag ci xamama xàmmeem yàlla yàlla taxawu ko ci barki yonent bi teg ci sunu baay sele moom itam ziar ko bu baax ndokkeel ko ñaanal ko sunu borom dolli ko kàttan ñoom am nañ ay doom am nañuy rakk yu leen di taxaw di leen doxal lii ba mu sotti waaye bu nu jëlee nuyoo bi jox leen ko dana agsi ci ñoom ñii ñëpp waaye ku ci ne mën nañ la tudd waaye bëgguñu mu gudd kon ñi ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di ñaan sunu borom li ma ko waxee ci Oustaz Arouna yàlla téye leen boppam taxawu leen tey nag monsieur le maire alhaaji Talla Sylla sëñ Babacar bàyyi xel ku baax waaye bàyyi xel lu baax départ fii wër kilifa diine yi ci dëkk bi dem kër maam alhaaji Ahmad Baro Njigéen ajjuma comme tey julleendoo ak ñoom waxtaan ak ñoom tàggu leen jóge fa yàlla dogal na mu dem këri sërif Abdoul ay dara waxtaan ak sërif naama xalifa bi mu ne ko loo nekk ñu nekk ca te dinañu la ñaanal ànd ak yow mu jóge foofu ñëw jàkkay tukkulóor fekk fa Thierno Lamine sàll mu recevoir ko waxtaan ak moom mu tàgg ko jóge fa ca suba ga mu ñëw kër sëriñ fàllu gi ci àngal sëñ fàllu waxtaan ak moom dem kër soxna saybata aydara fanaan kër sëñ saaliw ture mi nga xamante ne si ku nekk xam na taxawaayam ci kër maam Cheikh Mat Bamba Xaadim Rasuul foofu nag ñëw kër sëñ Babacar Ngom wàcc fa kaamilu alquran ci taw bi bi ñuy xatmul quran bi ci la taw bi di sóob waaye pour nga xam ne Oustaz Arouna monsieur le li muy def dëgg la ñun ñoo toog ci mbaar mi di seelu taw bi mu fel taw bi ànd ak moom génn ñu ne lu tax ngay génn ci taw bi mu ne sëriñ Bamba duma ko doxal santaan am santaane bu tegu sama kaw may toog di xaar ab taw taw day dox mission may dox sama mission kon kooku li muy def dëgg na te li muy def dëgg la te li muy def dëggal na ko kon yéen ñi nga xam ne yéen a fi toog yéen ñëpp monsieur le amul seen fay waaye nag jaar ko ci ñii ma bokkal ñu toog Baye Mor ñoom ñëpp ku ci nekk tey bu mënoon a jël kàddu li muy wax mooy jërëjëf ndax mën suur nee na ku la defal loo mënalul sa bopp war nga ko wax jërëjëf monsieur le maire nag duñu ko bàyyi ginnaaw duñu ko seetaan duñu ko itam bàyyi ndax moom bàyyi wax naa ne bi mbas mi ñëwee oustaz Arona woote bi mu njëkk a woote bi ñu agsee yow daf la fekk Dakar mais dama ko ne boo bëggee am jàmm lu jëm ci daara jox ko oustaz Arona ba xam naa ko ci taxawaay ci dëggu ci xam li muy def waaye ba pare nag mën a yaatal te kuy xatalal monsieur le xamoo kuy monsieur le maire kon ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi te sunu xel nangu ñu gis monsieur le duñu ko seetaan ci dara te lu mu bëgg ak lu mu yëkkati dinañ ci ànd ak moom parce que nag ba mu méttee gisuñu woon kenn ñëpp a dawoon otoom yi di départ di wuti daara yi otoom yi di départ di dem ci daara yi otom yi di départ ñuy togg ay ñam di yët ñooñu daara mënoon na ko togg yët ko ñeneen te booba bu ñu seetaanoon it day métti rek waaye du tee ñu lekk waaye nag li tax mu def ko yàllaa tax yàlla moom lañ koy booleel kon daal ngeen xam ne dëkk bii maire yii fi nekk ku ci gën monsieur le maire Alaaji tàllal Sylla la nekku fi